voilà comme je disais rek tay lañ gën a soxla patriote yi dañ nañ tok di waxtaan di détailler ci ay affaires depuis des des années euh, légui nak dañu yegg ci ben dañu yegg ci ben stade bo xamné euh stade bu bu critique mais bu am importance ci sunu ci sunu dundu déjà parce que nit ki amul dans sa vie amul lu dul ngëm-ngëmam ak bëgg-bëggam yooyu ñooy baasu doomu aadama sa sa objectif dans la vie ak sa ngëm-ngëm ñun nag dañu am ñaari suñu ñaari objectif yooyu mooy Seydina Ousmane Sonko ñaari objectif yooyu lañu am dans la vie mooy sunu ngëm-ngëm ñu gëm ko te yàlla tax jiital ko te yàlla tax wóolu ko aussi te yàlla tax confiance bang. fa am ñu taxaw né ñun suñu confiance buñ ko dundu suñu on n'a pas droit à espérer on n'a pas avoir euh, on n'a pas droit à avoir euh, l'espoir on n'a pas droit à rêver parce que dictature ngi ñiké euh, ci doomu adama ngukay dindi tutu nuyu naa la salaam euh nit ki je pense que beaucoup de liberté seulement entre quatre murs liberté aussi ça peut être mental vu que Macky Sall les 17 millions de personnes ou les personnes qui sont euh, tous les personnes qui sont avec Ousmane Sonko mënul sommes mentalement mentalement quoi jouer avec notre euh, notre cœur jouer avec notre tête chaque jour mu génnee bu bees léegi nag ñun bu ñu taxaw di xaar ba Macky def li ma bëgg te li mu bëgg bokkut ak ñun li ñu bëgg ñun dafa am ngëm-ngëm bu ñu am am dañu am yaakaar bu ñu am dañu am rêve bu ñu am te du kenn moo ñu koy lijjantil ku dul suñu bopp seen rêve nag comme li ma doon wax c'est euh, le président Ousmane Sonko bii paa nañ ko jox nopp bu bon bi parce que avant tout c'est pas la personne de Seydina Ousmane Sonko que ñuy dem euh, la protéger mais nous dañuy protéger aussi suñu espoir cet espoir du kenn kenn kenn kenn moo war am droit di ñu ko Sénégal yaatu na képp koo xam ne yaa ngi war a jóge ci région yi jéemal nga dugg noo mun ci de taille ba suba Fou moun ti dougou, moun dougou. Me tepko hamne, amon le mwoyen pou dem dougou ki bir Dakar. Senegal ya atou nan. Ti 14 rejon yoyou. Ya patou de patriot. Wone nan yon te ki bep eleksyon an bouta hawrek. Wone nan yon le patriot son patou. Makisal nan mwen mwouke piye tine sen rev. Macky Sall mu ngeen mu ngi bëgg a sen avenir parce que néna mom rek ak ay ñoñam ñoo do ñoo am droit rêver ñoo do am droit am avenir ñun nak nañ ko won ko non non c'est pas comme ça fep fu patriote nek bir Sénégal fep fu patriote nek bir Sénégal xam nga nañ koy defee jarul ñuy rassemblé wu Macky Sall lu mu am ci ay police ak lu mu am ci gendarme ak lu mu am ci militaire lam ci am lu tuuti la par rapport à li nous doon on est plus nombreux que l'équipe de Makissal. on est beaucoup plus nombreux que ça faisons les calculs nous on est 17 millions mettons que Makissal, il a ses 2 millions ou 3 millions on enlève ça Nous dindi mais calculons même si nous on est 10 millions de patriotes on est partout au Sénégal Faut ramener du policier du lendemain faut mon Maki Sal, bo dof dof lo, nyon, nyon yifi, bo dara dara lo khamne, warte mounan nek, am nek, Maki Sal mwenye gyechal na Senegal. Ti jou, man jopans pa ke Maki Sal amna anvi gyechal mennan. Amlou, ken koutwa pou Maki Sal koukou gem ou plu profon ? non c'est leur Nous, avons des ko Nous avons intérêt ñun au plus profond de nous donc nous avons les possibilités on bu Nous wu nañu nous Nous suñuy Nous Nous suñuy bët seede Nous suñuy nopp suñuy nous lu xew ko balancer lu nous xew ko balancer te ñépp dinañ ko yëgandoor te buñ ko nous ben le mot d'ordre ben la amul kenn kuñ koy dé amul kenn yow fa nga nek wonel ne yow sa avenir kenn du ko piétiner fa nga nek fa nga nek fa nga taxaw wonel sa avenir kenn du ko piétiner ces ces policiers militaires et gendarmes ils peuvent pas protéger tout le Sénégal té t'es li mais moi yéeme mooy ci bir policiers yoy ci bir patri ci biir yoy il y a des patriotes yu lay jël dila wo Tenez-vous en garde, tenez-vous en garde. Des hommes de tenue, du là, ça va y Je me disais que, mais attends, on est où? On vit où? On est dans quelle planète? Vous nous donnez, policiers, tenez-vous en garde. Parce que nous avons dit que nous avons donc, nous avons avantage le Du moment que nous avons fait c'est contre leur volonté. Donc, nous, on a encore un avantage de plus que Maki. Parce que nous avons fait nous ñun ñoo décider décidé kenn kenn pousser wuñu donc ce que je vous demande fou patriote nek, il se tient prêt taxaw bu amul ma Samba amul ma Demba Macky Sall bu dof-dof moi ba Ousmane Sonko il va pas il va plus retourner au Sénégal ou il va plus régner au Sénégal c'est fini pour lui C'est fini pour lui. C'est pas parce qu'on est loin. mais li mu li koy li koy yéem ak li koy jaaxal mooy ni ñu lu ñuy sori sori sori sori ñun ñi dañ la ñuy def de loin la ñuy toll di ko def mu di ko neex mu di ko naqari ñi nekk près toog foofu nekk ci dëkk bi ngir yàlla at yonent bi ak Mawlana Cheikh Ibrahima Niass ak koo munti gëm ñu ngi leen koy ñaan ngir yàlla ak yonent bi fexe leen fu ngeen nekk patriote bu nek na xam benen beneen patriote bi nek à ses côtés moy épaule biñu perte kenn soudé solidaire nañ soudé dee am nañ complicité soudé dee am nañ complicité parce que nak bo nek ci xare il faut nga mun a gi nga nekkal ñun ñëpp patriote yi nañ doon ben képp foo nek patriote bi nek sa wette moy sa miroir tu le protèges comme si tu protégeais ta propre personne donc fépp foo munti ne jaru ko ñuy wër Macky xam na ne ñun fu Ousmane nekk yaa ses avocats te lu ci xew nañ ñu wax te ku nekk fa nga nekk wax wax leen rek mois de mars wane woon na ko fii di boy fële di boy fële di boy te Macky munu ko woon téye ñan ñoo sonn reculer on est jeune macha allah toll nañ suñu digg ndaw dañoo war a tekki te kenn du jaay suñu avenir Macky Sall na comme que dafa bëgg a jaay suñu avenir ñu won ko noonoo non c'est du du du nañu tenir prêt ku ku war a liggéey jarul ngay liggéey benn journée du la wàññi dara ba ñu dégg ne Ousmane Sonko ngi ñibbi këram ku ne dem liggéeyi ku war a dem jàngi pareil jaru ko nañu toog teniru pre prêt man loolu rek laa doon am lu ma bëgg wax. Nous nous ñu partager mu yaatu fep fu patriote nek woote jarul sax woote ndax patriote bi xamna c'est quoi protéger ton pays c'est quoi protéger ton avenir c'est quoi protéger l'Afrique dégg lolu moy moy moy et comment le protéger c'est protéger Seydina Ousmane Sonko c'est protéger notre projet nous ko may dara résistance ba bay résister fu dara nekul Macky dina xam ñun ñoko gëna soxla Sénégal ñoko gëna bëgg Sénégal ñun ñoko gëna bëgg dundu un jeune de vingt ans bu ko un un un vieux de soixante poussière année bu ko bu ko gëna bëgg aduna non non non non non non c'est le jeune mu wara gëna bëgg aduna donc ce jeune là doit protéger son avenir dugg ci gal yi mo gëna metti dit mo gëna gën a nga sur terre donc montrons ma que ñun Sénégal ça nous appartient ça t'appartient pas montrons ma que ñun on défend notre projet on défend notre avenir on défend notre symbole de notre projet bu ñu ko may dara dara dara dara dara te bu bu li may wax ni, sànq sama gaay, yi xoola bu metti ba métti xoola nañ ko ñàkkante nañ ko ñàkkante ndax dundu yalla la dee yalla la amul lenn nous résister ba sur dernier souffle nous résister sur le dernier souffle nous avons ne la ne nous résister parce que nous avons résister mais pas gens. donc nous la ñuy ñaan képp faire nga pare Macky Sall nous ñun a doon pare Hope rek lañuy xaar léegi nag Hopam Hope rek la ñuy xaar jeudi luy xew rek la ñuy xaar jeudi luy xew fàllu bu ñu xamoon ne euh, nga baal ma moom frère nga ne euh, dara du xew sis bu ñu xamoon ne suba dinañ yeewu bu ñu xamoon li ñu yàlla réservel kenn du xëy liggéey kenn du sonn da ngay toog rek xaar yàlla mais yàlla yàlla bay sa tool. te boo seqeek ay bandi salté boo seqeek ñoo koo xam ne chaque jour ngi feexe num la kàmbalee te te tenir prêt ci jaamu yàlla la bokk résister ci jaamu yàlla la bokk ñu bañ ñi sa àdduna ci jaamu yàlla la bokk parce que personne na peut nous garantir ba man mii di di wax ak yéen je peux pas vous garantir que demain je me loolu ci loxo yàlla la nekk mais nag am naa sabab am droit ñaan yàlla ma yeewu suba donc ce fait, c'est dañuy tenir au prêt se préparer juste faut que Sénégal nga taxaw xam li xew ba kenn sais laalal ne Ousmane Sonko mais on ne faisons pas comme les Sénégalais Waouh, wa, yàlla baax nekk di nekk sa on ne, ay ay on africain.

regardons la réalité en face c'est pas parce que dañuy génn di déedéet de nous dara on se tient prêt et ko résister mais on se tient prêt du kenn du provoquer kenn ku provoquer ça, may ko pas bu bi. intéressé ana Seydina Ousmane Sonko dem na fa ok ku nekk delluwaat ci la nga nekk ana Seydina Ousmane Sonko mu nga fa laal nañ benn partout au Sénégal partout dans le monde foo munti nekk foo munti nañu résister nañu dem ba ma ñun ñu nekk eh, ci diaspora bi nañu génn ba ce qui est en train parce que Macky Sall ni muy def fait ñi xam nga ñiy dund biir Sénégal képp ku nekk ci diaspora bi jour bobu tu te tiens prêt mu ne nii ñu résister ci mbedd mi Fille, on peut faire ce qu'on veut parce qu'on n'est pas des esclaves on est en pleine liberté ba suma ma fi di di dor di yuxu personne du ñëw na ma kay ma li dañ may laaj qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu hurles c'est ça parce qu'on est libre au Sénégal, c'est pas le cas. Partout, partout des hommes détenus, des chars et du n'importe quoi. C'est quoi Ça, c'est de l'esclavage mental. Parce qu'on nous a enlevé les chaînes. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste C'est notre mentalité. Donc, vous nous

léegi benn benn doomu aadama ak groupe périm benn pres groupe de presque xam nuñ koy waxee bu tuuti tuuti tuuti taxaw ne ne noo yow da nga war a dund sa pauvreté ngeen koy nangu pour quelle raison bu ñu waxee ñu naan nit ñu baax ñee ngi fi tëdd mais nit ñu baax ñi nañ fa tëdd ba ñuy dund dañoo def loo xam ne yow tey boo boo soxlaa dara war nga ko mën a am kon nit ku waa baax ko kooku tàggoo naa ak yow bam la tegalee lépp

il te raconte du n'importe quoi yo y'a mouna a sa aduna. kenn du fa fek di pousse moun na la mais li nga matériel euh, matériel prima yo yo yow yo y'a koy def moi, lan nga gëm sa bop. Yo lan ben la yo di kon récupérer yo yo ken yo nañu résister nañu résister nañu résister loolu rek laa amoon li may wax Mame Diarra Bousso waaw ci barke jëmm jooju yàlla defal ñu li ñu bëgg su Ousmane dem wuyu ji ci jàmm ñibbiwaat ci këram ci jàmm loolu lañ bëgg loolu lañuy ñuy ñaan suñu borom mais nag du tax ñu ne yàmbalan du tax ñu ne yàmbalan dañuy toog nag di ñaan yàlla ba pare nag xaar bu fa danay demee neneen niñ ko bëggeewul rek mooy nañ génn résister ku nekk fa nga nekk foo mun munti nekk ci région yi village yi lépp lépp lépp bu ñu bàyyi dara ñëpp foo munti nekk na nga résister c'est tout loolu rek laa doon ñaa laa doon wax amin awa fay fay fay biram penda waagaan voilà amin yaa rabbi yàlla def li ñu bëgg yàlla defee ko nu ñu bëgg ndax moom moo ñu noppal nek nekk dem continuer ci li nga doon def ci sa sensibilisation dem continuer sa liggéey continuer sa njabot Macky Sall fitna rek bo génnee ci li mu teg la ci lenen bo génnee ci lee mu teg la ci lenen ba paré nek à l'aise di dund dundam du dund dundam c'est du jamais vu motax des fois da ngay dem ci yàgg ne kii ñàkkante ko mom mu ñak ñu ñak mais ñun nu munti démé mom goûté na la belle vie donc, nous, on doit le goûter comme lui. Comment le goûter, moi, on résiste, on protège notre leader. C'est fait, c'est fini. C'est fini. On résiste, on protège notre leader. Nous, on fait des millions. Nous, il ne fait même pas 100 euh, 000 euh, personnes. Moi, fait 30 000 personnes. Donc, mais faisons le calcul. Faisons le calcul quand même hein Sénégal cent cent personnes yo, xam yo, Yo gis mot, amuñ benn policier bu leen servir amul tu fais le calcul donc pourquoi ñu top fi, nak, ñu tuuti di ñu bugg a emmerder voilà loolu la rek awa ah nuyu naa l'en, fay voilà nee naa leen affaire bi du yag, du yag. c'était juste pour vous dire que euh, tenons-nous prêts euh, à résister euh, Talk déglu incha allah rabbi loolu kese la déglu bu demee wuyu ñibbi këram alhamdulilah noonu lañ ko bëggee loolu la ñuy ñaan yàlla suñu borom te yàlla naan yàlla yonent beeg Maulana Cheikh Ibrahima Niass mii ma jàkkaarloo defal ñu ko loolu lañuy ñaan ñëpp nekk ci jàmm waaw bu demee neneen nag mooy na génn résister ku nekk fa nga nekk jeex na merci encore voilà bonne journée bàmb Gueye mu ngi noonu maam Bamba lool kessé fi des lool kessé té buñu buñu buñu buñu bu ñu bu kaf bu ñu suñu bop voilà bonne soirée à tout le monde merci merci à wa fay Faye Faye Birame Penda Wagan jërëjëf nañu té nak ñaan ñaan yalla baxna na voilà Ndeye Fatou Sarr salam sister salam <laughs> voilà Ndeye Fatou ko dendal rek ne len ñu paré ñu résister rek incha tok toog déglu waa bu ñu sànni xeet kenn bu ñu saaga kenn bu ñu wax kenn dara mais nag ubbi suñuy nopp ubbi suñuy nopp bu jour ba rek mu dem ñibbi mu dem uyu ji ñibbi këram incha allah sinon rek ñu delloo yëf ci mboy ga mbay ga ca mboy ngoy ga rek résister incha allah allez bonne soirée à tout le monde jërëjëf